moom la ko defe woon mu weex démb ñuulaat fii yor même mission bi di ko doxal mm-hmm. mais loolu du du mbir mi mais fopp lay tijjee chaque jour moo tax mm-hmm. parce que euh, du actualité mais mm-hmm. daal naa Seydina Limaamu daal ak mag ñu baax ñi yàlla na leen yàlla euh, fayal te itam suñu mbokk catholique yi réew mi dafa nekk réew mi riche euh, ngalax yi moom sama commandant chef muy Cheikh Omar Diagne mm. Euh, république islamique bi nuy bëgg ñaan fii ci réew mi. Mhm. république islamique buy ànd ak ngalax nag la bëgg. waaw ah ah, waaye république islamique boo xam ni. Hmm. Euh, république islamique bu ànd ak i ngalax. paak paak dañuy ngalax république islamique bu am ngalax. Hmm. fii rek lay amee ci Sénégal. Hmm. catholique yeeg jullit yëpp nekk benn ay ñu doxal islam bi doxal euh, le christian religion révélée yi quoi delloo yàlla la mu moom maa ngi lay delloo kàddu gi parce que tey moom. mbirum yëre bu weex euh, bu weex bi waxoon naa internet yi ni leen fin de mission la fukki weer ak ñett. të të të të të bon chiffre la bu diis quoi. yaa ngi chiffre de treize dafa diis grand. bijou euh, balaa émission bay jeex euh, suñ wax ci lay moor. lay yi am ci kii bi am na benn photo bu ñuy génne gars yi xam nga ñaata moor lañ fay wane. Mm. te te de treize dafa mystique te dafa doy waar moom euh, te te te tu sais que merci beaucoup euh, mhm. Vito mhm. Euh, yàlla yàlla noowam bi dana jëlaale mhm. mooy al ahad moom la dul négocier son unicité ah son unicité al ahad xul wallaahu ahad soo ko bindee mais est xam nga ñaata baat la mm. fukki baat ak ñett la treize mots la Euh, poids mystique euh, gu al ahad en day dafay ñëwaat nekk të të treize. treize moom dix gann la def man euh, tu sais doon naa fi wax ni tooñ nan ma nangu sama terrain benn femme tooñ ma de nangu sama terrain yóbbu ma ci procureur bi ñu téye ma douze jours. ok douze jours. mais bi mu desee ñetteeli ñetteeli euh, euh, benn jour bi manqué woon euh, ma am fi benn jafe-jafe bu ndaw yaa may dégg mhm. ma dem ma dem ci procureur bi foopootim ay dossier yu ma defar la ku nekk defaral sa dossier yëpp dañ may tooñ sama alal di ma ci tooñ di ma yóbbu ci yoon procureur ma dem mu téye ma ni ma xaalisu jàmbur xaalis mooy ci jamonoy corona bi bi ñuy livré ñu tëj dakaar nga war a dem jëli woo ko ñu woo la fanaan ga ma fa fanaan toog naa ñetti fan lekku xoolal lekkuma naanuma te xiifuma maruma mais loolu loolu soo ko dee wax fii sax dañu naan waaj day kii xoolal. Mm-hmm. trois jours j'ai pas mangé xiifuma defuma dara mais bi nu ma yóbboo ni ma dangay am euh, retour de parquet ma fanaan ci commissariat bi nelaw foofu. bi ma yeewoo lan ma ni suñ la tëjul woon euh, ci garde à vue bi nii benn mm-hmm. fan mm-hmm. mu ngir mu mottal li sa fukk ak fan ñett yi mm-hmm. ñu ni ma ci bàmmeel nga doon fanaan tey bi ma fanaanee ba yeew biir set domadaa bi ñu indiloon benn booy foofu pour mu añe ko maa lekk domadaa bi yëpp domadaa yàpp wala jën <laughs> bu ànd ak i mm, bulet waaw pour pour wan la ni la après lan ma ni il fallait que sa treize jours de détention yi mat yonent yàlla yusufa moom est-ce que xam nga ñaata yonent yàlla yusufa moom dana mettale moom xoolal fukki at ak ñett lan ko tëj hmm. waaw fukki at ak ñett la alxuraan indi te moom bi muy am treize ans lañ ko sànni ci teen bi mu dem mu dem ci kër buur bi def fa te te te te treize ans ñu ñetti treize treize yi muy trente neuf ñu yónni ko euh, à l'âge de 39 ans mu doxal mission bi ci buuru Égypte bi 14 ans. 14 hmm. bis boo ko booleek booleeg euh, 39 yi day nekk 53 nga parce que da koy boolee mu mu mu en jox la 8. 8 hmm. Bassirou Diomaye Faye bi Bassirou Diomaye Faye à 44 ans. 2024 hmm. la moom la jël réew mi 8 8 boobu day dellu si waat Bassirou ak Youssoufa ak man. suma vidéo dafa am interconnexion. loolu la ñuy wax Basira. voilà voilà parce que huit boobu. Mhm. huit boobu huit boobu dafay dellusiwaat ci 1962. Mhm. li xewoon en 1962. Mhm. problème mu Mamadou Dia ak Senghor coup d'état bi amoon problème bi ñuy bëgg a waxtaanee ci kanam 1962 la xewoon. ren la def 62 ans. boolewaat ko lu mu lay jox. ñu may jox. 62. 2 6 ak 2 lu mu jox 8 problème mu Mamadou Diaby. ba mu amee léegi am na 62 ans. Diomaye Faye war a dugg ci war a dugg ci pale bi. 62 ans après. après la libération du pays 62 ans ba léegi Senghor daf ñoo noot avec ses lobbies 62 ans amaguñu woon indépendance bi ñu ko jëlee en 60 deux ans après ba so parce que Mamadou Dia ak Senghor ñi ngi doon liggéey réew mi ñu teg ko ci axe. 62 mhm. la réew mi basculé 1962 mooy le coup d'état bi ñu doon wax de Mamadou Dia jiñ ko ko 62 boobu nag ba 2024 62 ans la nga bas fekk muy 8 Diomaye Faye war a dem ci palais bi pale bi nag lan la fa Macky Sall suul xaw ma ay mine la fa suul xaw ma lu mu fa suul mais Macky Sall waay euh, Macky Sall daal Macky Sall daal nattu la ci réew mi quoi. te di nan waxtaan ci kanam pour ñu dana ci waxtaan ñu organiser waxtaan bi c'est très Mm-hmm. Euh, Ousmane Sonko a du boulot grand. Vous êtes sur 313 Digital, oh, c'est très sérieux. Ouais, ouais, euh, c'est les mots de Mody Seck. maa ngi leen di nuyu yéen ñi ñu euh, safoo di seetaan yéen ñi nekk fidèle internaute téléspectateur inconditionnel de 313 Digital Ndeye Touré maa ngi lay ziar Fati Cissé ak tout le monde c'est très sérieux loolu moo di tonton moo di wax tonton moo di. qu'est-ce qui est mm, euh, Sall n'a aucun mérite mi ngi joxe réew mais amul benn mérite parce que Macky Sall euh, man euh, tu sais que fii ma ñëwoon fii taxaw fii di wax sama premier video mm-hmm. maa ngi ñaan internet yi ñu dem revisiter ko. vidéo bi def na deux cent cinquante mille vi mm-hmm. un quart de million de vues. Mm-hmm. laa ñëw ñëwoon ci appel bi fii. ma xool réew mi problème yi liñ ma wan ci réew mi. Mhm. ñu wan ma Ousmane Sonko. wan ma baatini Ousmane Sonko waxoon naa ko fii du ma répété wu day jël temps wu émission bi. dem leen ci vidéo bi rek. tàppe mhm. leen euh, bi ma nee gis naa mu sol lu weex. tàppe leen Sonko gis naa mu sol lu weex Moody Seck. Mhm. d'ailleurs Moody Seck rek su ngeen ko tàppee vidéo yëpp day génn ngeen mën a défilé mën a xam la ma fa waxoon ci laay ñëwee ni leen. sama borom de li ma wan ci réew mii. Macky Sall laay interpellé entamé ay discussion ak Ousmane Sonko la mu doon bañ ca loolu la mujjee. ci laa leen ni woon kii ngeen song du ngeen ci am ndam parce que kii ma gis nii li ci gannaawam du nit du jinne après la ma journaliste bi bi fi newoon euh, ni ma gis naa ñu euh, GIGN mu kase vitram est-ce que duñu ko euh, bakkanam ak ma ne leen kii xoolal bakkanam fi ko sunu borom làkk. Mhm. kenn xamu ko Ousmane Sonko kaaraange gi ci Ousmane Sonko. non boromam bi ko sàkk rek ko ko xam. Hmm. man daf ma yéem. parce que man yàlla may parce que nag su fekkee ni euh, baatin moom tey moom du ma ci dugg solo ma lu weex. Hmm. di nga wax tey non parce que non non tey moom vaar tey moom. da mais yow li ngay wax nii rek baatin la. Euh, biisu nee naa ko. Hmm. biisu nee naa ko. biisu nee naa ko euh, bon émission bi ma waxoon ci Bassirou Diomaye Faye cinquième président de la République. na ma ci defal vaar bu rëy. ah puisque que ñu ngi vaar gars yi man naa sant yàlla. mais dinañ ñëw sax ci vaar mais qu'est-ce qui est très sérieux euh, mais gis nga bi ma leen ni na waxtaan ak euh, Ousmane Sonko mii parce que dafa am kuy jël ak kuy joxe. Mhm. sama premier eh, vidéo yi fa laa waxoon ni xoolal moom sax moom sax Macky foogoon na ni du joxe. vidéo bi laa li xamoon naa lii ba may wax vidéo bi gis nga wallahi jour bi ma taxawee journaliste bi di ma laaj. ndax Ousmane Sonko kon xanaa doole ma ne leen gis ngeen kii ngeen gis nii li ngeen gisoon mois de mars. Mhm. wis wisal la rek mu war a taw su yegg see tee dina euh, dinañu xam ni tempet dëgg lay doon. ci mhm. laa leen ni Ousmane Sonko mii régime bi song. Mhm. gis nga su booy jógaatee le 2 juin loo ci gis nee nañu 2 juin moo dina tàng mars. Ah, avec tout ça malgré tout ça. xam nga lu mu wax. Hmm. li fi amoon du fi amaat te man sama vidéo baa ngi doon daw moom ci boppam je l'avais interpellé ngeen foog ni Macky li ma ko wax yépp ci internet bi su ma xamul woon déggul samay mbir kon ba léegi maa ngi ci kaso bi. tey na ma bu yàgg Macky Sall daf xam bu baax. Hmm. baatin ngi ci man Macky Sall ko dana xam. Hmm. yaa dégg parce que moom wax wax naa ko fi waxati ko ñëw na sama na sama kër xam na ma jox nañ ko ay secret ci sëriñu euh, yoof bi mu jëli ko doxal réew mi xam na ma bu baax mais tu sais je l'avais averti. ni ko gis nga kii nga song doo ci am ndam li ci gannaaw du nit du jinne ñu dem ba tey jii ba nii nii nii mais ba léegi nii euh, mérite amu ko parce que parce que mérite bi mooy maanaam euh, yow dem ba mu yàqoo say loxo dem ba def 4 appui cinq bëgg a tekki sa ngem bëgg naan damay jubilé jubilé da ngay jubilé heure bi nga téye doole affaire bi mais dem ba ngemb gi tas sa ngemb tas ñu yóbbu la ardo kat ab yi ngay door te ba léegi bàyyiwuñu hmm. te loolu waxoon naa ko fi man euh, bi ma doon wax naan j'interpelle le PDS PDS hmm. suñu foogee ni PDS c'est Abdoulaye Wade c'est Karim Wade dañuy nax seen bopp hmm. PDS mooy député yi député yi ne assemblée les barons du PDS les baron du PDS ñi nga xam ni depuis Abdoulaye Wade sos parti bi les anciens kayit du PDS ñoom ak Macky Sall wala Macky Sall en fait partie. Mm-hmm. ce sont ses acolytes dañoo yàgg xamante nañ bu baax te ñoo ñu te ñooñu lay lëngool bloqué réew mi. gis nga nan leen bàyyi xel man en tout cas la may ñëw rek di avertir avertiroon naa mooy boroom euh, jàllaabu bu weex bi daawoon toog fële te mu daan sol jàllaabu bi rek. ñu naan ko mm-hmm. di Seck moo daan toog fee. Mm-hmm. di wax ay waxam tey nag moom. moo di moom <laughs> la waaw. <laughs> moo di géey la. waaw caabi bon caabi <laughs> bon même am na benn benn borom yére bu weex bu daan toog fee. Mhm. di leen avertir naan leen xoolal moytu leen gars yi. Mhm. ñii ma gis bàyyeeguñu. bu la saboté la nii nar def. Macky Sall euh, euh, décision mi mu jël. Mhm. dinañ ci ñëw. dama ne la ana leneen lu dul sabotage. parce que man euh, xoolal réew mi sa waay li ci dee. kenn xamul lu mu toll man daal le chiffre de treize bi ma intéressé te treize bi moi je sais que ni dina ko topp foog na ni vidé nanu nii ak nii le chiffre de treize dafa dafa mystique. mais sànq da wax ne. yàlla Yuusufa sax ba muy gis mila vu onze étoile ak weer weeg jant bi boo ko boolee mu doon. treize kii ast treize ast lii tourné nii ci réew mi c'est c'est mystique. Mhm. temporel ak mystique ñoo entend ah. mais daal euh, gis nga réew euh, wax moo koy euh, wax lañ koy da wax ba jot ci réew mi mhm. waaye nag xoolal fullaak faydal dëgg dëggal sa bopp moo koy doxal mhm. nanu wàññi wax ji nanu wàññi wax ji mais sànq lan la suul xaw lan la suul non mais tu sais man j'avais averti ni euh, Macky Macky a tout désectu désectu euh, bon dafa dafa dafa dafa tas réew mi quoi ni ko tasee mooy maanaam gis nga bon économiquement politiquement bon institutionnellement Macky à euh, bon. désacraliser peut-être lu gën a bëri. mu moo bi may chercher sax parce que bon man j'avais dit que ni euh, ñii di ñii di ñëw. Mhm. parce que man tu sais que toogoon naa fii nga di ma woon euh, est-ce que dañuy jàll premier tour. Mhm. deuxième tour ba may toog fii xamoon naa ni premier tour la ñuy jàll. waaye man nee naa man lu ma arrangé laay wax gis nga su ma ne woon euh, non gars yi bi sotti na. Euh, premier tour la ñuy jàll su ma ko waxoon fii deuxième tour la ñuy jëm xam nga lu tax dana naan non non le combat est gagné. Mm-hmm. képp ku naroon a jógee Louga sax paas ñëw Thiès voté dana naan non non. grand affaire moom dañ koy rab mais xoolal li ma leen nit dafa seere te gis nga sunu euh, jëlul woon yi rayante teel a jóg voté ji. deuxième tour la ñuy jël te gis nga Pastef nee naa leen mm, euh, le score de Amadou Ba. Mhm. joxe woon naa ko fi nee woon naa leen il ne fara pas moins que moins que Wade il ne fera pas plus que Diouf. Mhm. Wade bi muy dem trent 35 pour cent la bàyyee. Mhm. Diouf bi muy dem 42 pour cent mais diggante boobu laa leen ni. Euh, Pastef jóg leen ngeen dem voté ji jël réew mi. Mhm. te ma ni leen ngeen bàyyi xel yéen ñii di nar a jël réew mi. Mhm. xam leen ni lu lobby yi Macky Sall yore. Mhm. parce que euh, ma Macky Sall Amadou Ba ay nit lobby lañu quoi parce que réew sax lobby koy doxal. ma euh, Macky ci wàllu boppam am na ay lobby yoo xam ni da koo donn mmh. des lobbies financiers des lobbies affairistes des lobbies médiatiques euh, des lobbies maraboutiques mm-hmm. ah, euh, ñëpp mën nañ leen tudd mais lobby affairiste bi nga xam ni ñoo yore économie réew mi instant bi tey mi ngi mi ngi manœuvrer loo xam ni suñ ca yegsee dinañ ci dugg mooy affaire nomination yu bari yeeg Euh, non nomination gendarmerie ak kii bi kooku à part la mais nomination yu bari yi muy def nii. Mhm. lan la ci jublu mais c'est du sabotage keesu réew mi yow masse salariale bu kenn xamul ngay nommer ay nit yoo xam ni xoolal mi laa nommer plus de cent cinquante personnes yoo xam ni ils vont avoir des salaires de quatre cent mille six cent mille mooy euh, les conseillers bon yi nekk économique euh, te moom su ko la te moom su la nomee même suñ la dàqee da ngay fayee ku sa salaire pendant six mois ministre ñun damay ko tey. Mhm. mu jël fonction jëlagu ko sax mais décret bi rek. su entrer dans le circuit rek. même suñ la dàqee da ngay toog di fayee ko sa salaire pendant six mois da leen a bëgg may euh, euh, salaire yu six mois kees gi ci des li des ci xaalis bi. Mhm. xoolal moom la bëgg a sotti essence taal ci. ay nomination yu dul jeex sabotage bi ma doon wax nag mooy lii. Mhm. te gis naa ci loo xam ne sax mënuma léegi sax ay affaire gis naa ko yooyu ay affaire mais j'avais averti léegi moom je dans le rationale moi je que ñi nga xam ne ñoo war a jël réew mi. Mhm. parce que Ousmane Sonko gis naa ko bi muy recevoir yi ji Macky Sall mu yore benn. cartable bu ami document yu baax. c'est bon mais nanu vérifier nanu def état des lieux ministre du commerce bi war a toog ministre du commerce bi war a toog la mu la mu war a njëkk def mooy. na convoqué tous les importateurs. ñii ñiy importer gaz. nan leen woo bato gaz bi importation bi fan la toll est-ce que commandé ngeen ko est-ce que mi ngi ñëw bato pétrole bi ndax mi ngi ñëw bato ceeb bi fu mu toll ndax mi ngi ñëw sucre bi huile bi euh, mais dama ni daal suñu jëlee réew mi. moom y aura des mais changement yooyu muy nar a teg équipe yooyu ñuy nar a toogaat am na ñoo xam ne sax mën nañu bañ a sax euh, commander à temps ce que le pays à besoin. Mhm. parce que ñun dañuy dundee importation balance déficitaire à plus de quatre-vingts pour cent je pense kooku su fekkee ni euh, parce que y a des lobbies yoo xam ni ñoom ils sont assis sur des milliards. Mhm. nga waroon a importer dara retardé ko de deux mois un mois yàqalu la dara. Mhm. mais mën na yàqal réew mi quoi. façon sabotage bu nekk man sabotage bi mënu ma woon parce que c'est un président ki est en fonction. Mhm. soo dee wax di dinañ la woon laaj la li nga wax foo ko teg. Mhm. fekkee ne ay da nga naan damaa tëdd nelaw ak yooyu génnewu la ci. waaye mhm. mën nga sañ nag ñi avertir jël leen seen disposition sabotage. mais bi nga gisee. ñii di dem duñ leen bàyyi ngeen doxal. mais duñ leen bàyyi ngeen doxal. ah lan exactement. ñàkk bàyyi ku ci nekk fa nga man Mm-hmm. di nga perturber réew mi parce que ñoom fi mu toll nii waxuma sax dellu si ñoom dañu jàpp ni parce que parce que parce que Macky Sall ni ni mu fowee réew mi rek moo euh, moo lay euh, non gis nga sabotage bi dafa yàgg. Mm-hmm. Euh, l'UEMOA l'UEMOA avait averti depuis bi muy yóbbu dette bi. Mm-hmm. dépassé na les soixante-dix pour cent. Wade il l'avait laissé à 40 pour cent même pas 40 pour cent. muy leb di dem rek daal di ànd ak Amadou Ba ils se sont enrichis avec cet endettement là loolu yëpp c'est à auditer loolu yëpp dañ ko war a seet endettement boo xam ni yow ci say poos la jëm. leb nañu 16000 milliards Covid ñu lekk ko leb alalu réew mi yëpp chantier yi leb ba pare mbu booboo ay chantier enrichir réew mi léegi réew mi ñun xoolal amatuñu marge. marge marge de manœuvre Ousmane ko bëreetu ko. Mhm. li fi desas néew ñi ngi koy dilapider waaye euh, nomination gauche droite suba ngoon te et man je j'ai dit